asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki diaspora bi may dellu si waat tey ci les vidéo de Barthélémy Diaz ñëw waxtaan si ak yéen euh, ci fu ñu toll ak lu ñu fas yéene def euh, ci jamono yi muy euh, jamono bu am solo ci ñun sénégalais yi ak tamit ci ëllëku Sénégal mbokk yi nag. ñu bëri dañ ma woo téléphone ñu bëri yónnee ma ay message ne ma Barth dañ la gëj a dégg lu xew ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di dolliwaat di santaat yàlla ah, wolof Njaay nee na kuy yott du sëqët ah, ñu may waxal xam nañ seen bopp ah, mbokk yi lu tubaab di wax

Euh, su ci ande Inshallah, fait election élection présidentielle parce que élection présidentielle bi dafa ro élection buy xumba té dagan té lu ak lu daganal amna yakar man na ci dugal suma loxo té di lu may def mu nekk lu am solo ngir ma mën a bokk ci élection yi parce que saay-saay yu ma ko séqal euh, ñu ngi def seen kentalaay kàttan pour ma bañ a fekk élection yi moo tax euh, fan yi ñu jàpp euh, ay ndaw ñu ànd ak Khalifa Sall nekk ay ndaw ñu dëkk fii biir commune de Mermoz Sacré-Cœur tuumaal leen bëgg leen dëkkaloo dëkkul téye lu dix jours de façon illégale de façon arbitraire de façon injuste ñu leen di def retour de parquet di di indi di leen di yóbbu di di indi di leen di yóbbu di leen di fanaanloo ci suuf di leen di di sonal ndax lan ndax nam dégg suma baat dama nam suma aw ma lenn lu ma ciy wax ndax lan ndax nam ma ma gis ma taxaw buntu dikk wala taxaw tribunal dama ne jamono yi kenn du ma perteloo suma ma temps su jot bi lenn rek laay ci dox suba ba ngoon mooy xool nu may jëlee fii Macky Sall ak ñu mu àndal parce que lu ma jàpp mooy saay-saay bu fi nekk dañ ko fi nar xeex jëlee ko fi naa féq bu fi nek dañ ko fi nar xex jele ko fi sohor bu fi nek dañ ko nar a xeex ko fi iñan bu fi nek bon bu fi nek sohor bu fi nek sis bu fi nek dañ ko nar a xeex ko fi le Sénégal n'a jamais été dirigé depuis l'indépendance avec autant de méchanceté autant de cruauté et aujourd'hui je le répète ma mission mon rôle mon objectif c'est de débarrasser le Sénégal de ce régime actuel. C'est devenu une œuvre de salubrité publique. amul ken ci ñun ku nga xamni so soo le matin mbalit bu nek sa kër do ko jema dajalé pour génne ko ci mbedd bi mbalit nak bu nek bir Sénégal Mom la nam andak ak dajalé mbalit bobu génne ko Sénégal fomp Sénégal Sénégal doonaat dëkk bu set ndax Sénégal mën a jëm kanam kon nak mbokk yi. loolu dama leen ko bëggoon baaxe pour que xel mën a dellu siwaat mën leen ko baaxe pour mën leen wax ne que fu ñu jëm nii dina bëri lu ñuy woy ay fake news maanaam ay xibaar yu dëppawul ak dëgg parce que tey su ñu jógee tey ba di tudd Barthélemy Diaz ba di ne Barthélemy Diaz mën nañ xalaat mu ànd ak kii di président Macky loolu ay wax yu daanu saret la wax yooyu daanaka ci gàttal soxlawul sax ma ci sori parce que fu ma toll ci xeex bi ku yeewoon Macky Sall trois heures du matin ne ko Barthélémy Diaz dina ànd ak yow Macky Sall ci boppam du ko gëm nee nañu dama demoon kër Aïda Mbodj Aïda Mbodj su ma bàjjan su ma tant su ma soppe maa koy ndokkale au passage dégg naa da doon maye doomam wala doomam a doon jël jabar ay doom mu may dégg xam na que musul ñëw suma kër te man mii mosuma dem këram parce que moom mii ay doom xamul suma kër te man tamit xaw ma këram donc loolu wax bu yàqu la ah, mbokk yi nag ah, bu ci des tamit te mu nekk euh, lu am solo mooy euh, nañu gën a dëgëral suñu taxawaay parce que loolu moo am solo lu tax moo am solo parce que fu ñu jëm nii lu ñuy dox nii plan bu ñuy jéem a lal nii su ngeen defee seen warugar plan boobu mën nañ ci am ndam mën nañ ci am ndam te mën na nekk ndam bu jeggi dayoo daanaka mën na nekk ndam bu nga xam ne ni dañuy tënk lépp ci premier tour incha allah mbokk yi.

lañu ñom ñëpp ay wëllëre lañu ñom ñëpp ay xarit lañu ku ci nekk ci ñom nak am nañ luñu ñu ak yow am nañ fuñu jaar ak yow motax euh, mbokk yi euh, lu ma leen mëna wax té ngeen mën ko japp té ngeen mën ko téye moy Khalifa Sall ak ñu mo andal duñu ñu boycotter élection présidentielle bu 24 février 2019 lolu xel xalatuko ko boycotter élection présidentielle du 24 février 2019 mooy le coup Sénégal Moi dolel Macky Sall te loolu méngoowul ak lu ñu namm ñun ci ëllëgu Sénégal Motax euh lenn mën nañ ko wax di ci jéggelu nak. La campagne bi commencé dimanche le 3 février 2019 ñun dimanche le 3 février 2019 dafa am luñuy xaar té luñuy xaar mi ngi joggé feulé ci Abuja ci cour de justice de la CEDEAO moy recours bu avocat Khalifa Sall introduire feulé ci CEDEAO CEDEAO nak ñom dañu fas euh dajé le 7 février 2019 té am nañ yaakaar que le 7 février 2019 dina am décision bu cour de justice de la CEDEAO di joxé ci. Euh, dossier wu xalifa Sall te may biralaat wax ci nee naa suñu plan B mooy def suñu kéemtalaay kattan ba suñu plan A mën a marché te plan A bi mooy xalifa Sall nekk candidat su ko yàlla dogale sant yàlla su yàlla dogalee leneen tamit ñu gëm yàlla ànd ak ñu ngeen xam ne ni euh, ñoom ak ñun ñoo bokk gis-gis bokk bëgg-bëgg ci ëllëgu Sénégal boobaa nag Euh, lu Khalifa Sall di wax moom la ñu wax lu Khalifa Sall waxul ñun waxuñu ko ci gàttal su Khalifa Sall demee gauche ñu ànd ak xalifa Sall dem ak moom gauche su Khalifa Sall demee droite ñu ànd ak Khalifa Sall dem ak moom droite wante boycott du fi am euh, fu may daanale nag mooy yéen askanu senegal yéen soppewu Khalifa Sall yéen njabootu Khalifa Sall dama ne du Massamba du Mademba du Barthélémy Diaz du Jean du Paul dama ne lu Khalifa Sall wax mom lañu wax lu Khalifa Sall waxul ñun waxuñu ko consigne de vote Khalifa Sall moy suñu consigne de vote lenn nak man naa ko wax te Khalifa Sall moo ma wax ci kasso bi ci lundi dernier bu ma dem ji mu Barthélémy ma Khalifa mu ne ma bii def coalition bien du am soutien bii luñuy def moy partenariat bii luñuy ande def moy and ak ay partenaires kon képp kuñu ñu jappalé a kuñuy andal yen ñuy àndal na ngeen ne ni que dañuy and ak mom ci partenariat dañuy and ak mom ci kaw suñu gëm-gëm suñu gis-gis suñu programme ak tamit lu ngeen xam ni dañ ko yag wax te ko ko l'esprit des conclusions des assises national motax tax mbokk yi wax ji duñ ko guddal dinañ dellu tamit ci ay vidéo de Barthélemy Diaz l'officiel wax leen tamit fan ngeen nara teg seen tànk ak tamit lan ngeen nara def ak lan mo nara a doon seen taxawaay ñoom nag ñu ngi def seen kentalaay kàttan pour tas seen yaakaar yàq seen xel yàq seen xol wante yenn ñëpp xam ngeen lan mooy taxawaayu saay-saay surtout saay-saay bu pataa bu duuf surtout saay-saay di ponkalu mu saay-saay xam ngeen ponkalu mu saay-saay du wax dëgg wante mën na yàq xel mën na yàq xol mën na yàq xalaat wante yéen da ngeen dégg daaj yéen askanu senegal ngeen xam fu ñuy waxee ñu ngi jéem a yàq seen xel ci carte électeur yi dem leen ngeen jël seen carte électeur yi dem leen ngeen xeex retirer seen carte électeur yi kuy dem xare ji day am gànnaay te fu ñu jëm ak gaañ yi su ngeen demee jëri seen gànnaay ci kattanu yàlla dinañ ci am ndam te maa ngi am kontante lool lool lool lool di dégg ni que suñu maam suñu wójur suñu wëllëre di président Abdoulaye Wade mi ngi fas yéene jël roplaan ñëw Sénégal kooku day seddal suñu xol day gën a dëgëral taxawaay bi te dañuy gën a may fit yàlla nañu yàlla attee ak ñooñu yàlla nañu yàlla may ndam yàlla na yàlla def lu gën ci senegal mbokk yi amul tiit amul dellu ginnaaw amul sàllit amul xel ñaar benn wax lañu am mooy taxaw tem mooy gëm suñu bopp gëm yàlla wóolu yàlla dox dox bi ba am ci ndam ngir Sénégal mën a jëm kanam ñu ngi leen di gërëm di leen di sant di leen di béggee bu baax